waaw loolu dañu si sant rek di gërëm euh, COJER euh, départemental ak national mais surtout le coordonnateur national Moussa Sow parce que bi mooy ñaari yoon ma gis ko ci département bi mu ñëw fii di dajale di boole surtout jeunesse bi pour ñu ànd pour nekk benn tey jii ñu organiser ndogu ci centre Sidi Hott Fia yëmbal ñu convier ko responsable yi nekk ci département bi yëpp responsable yëpp tey jii ñëw fi daje wuy si invitation boobu parce que comprendre nañu message bi nga xam ne président de la république wax na ko parce que président de la république bi ñu analyser élection yi xam na ne ñun suñu tasaaroo moo tax ñu ñàkk élection yi nee na nañu juboo parce que suñ juboo yi dinañ gagné ñun tamit en tant que ay responsable xam nañ loolu parce que xam nañ ne département bi ñoo fi majoritaire li ñu fi am ci ay liste parallèle yëpp ñu dajale woon tey li ñu am ci ay ñooy gagné mais tasaaroo bi ñu tasaaroo moo tax ñu perte comme nag ñun président lancé message booloo ñun comprendre nañ ko ñun dinañ def tous les moyens ñun responsables yi fexe ba juboo fexe ba booloo pour gagner les élections législatives ndax nag xam nañu élection législative lan lay jariñ ci euh, réew yi am démocratie comme le Sénégal tey soo amul majorité à l'Assemblée nationale tey jii pour nga gérer dafay jafe parce que cohabitation lay laaj ak opposition bi te Sénégal ku gis opposition bi ni muy doxalee nga xam ne parewuñu sax amuñu maturité sax pour dund ay cohabitation loolu blocage rek lay ci réew mi donc moo tax ñun dinañ def tous les moyens ñu fexe ba élection législative ñu booloo gagné ko pour que président de la république mën a continuer gérer normalement sa pays mën a eggali tamit liggéey yi nga xam ne yëpp mi ngi koy def ci dëkk bi pour dëkk bi gën a jëm ci kanam. position Omar Sow loo ciy loolu du ma ci wax lu bëri parce que comme dañu commencé di di di président teg na sax benn commission départementale ne nañu commission bi dugg fii jubale nit ñi kon du ñu mën a wax ne kenn jubawul ak kenn. léegi différent yi lañuy xool rek fu ñu gis différent ñu si dox wax ci ba loolu fay ba loolu jeex ba ñun ñëpp ñu ànd incha allah balaa le 31 juillet ñun ñëpp danañ ànd nekk benn incha allah